bismillaahi ma jug dem ba daaru rahmaan bakk mbër ma ko sancoon di jaamu rahmaan koka moo di sëriñ fallu moom ma sejeey waajuramu jigéen mas la toggu tal bu ba mu tal daaru muxti leer ga jóg wuti kaw jëm si daaru rahman koko doomi sëriñ moodu awa ballak soxna yi sa tëjeey gor su jëkk sam ndaak moo tabax fa ci kër fa daaru rahman moog soxna faat joob ngir soxna faat joob gor sa doy sa kiimaan at mu nekk mu ñëw moog njabooti cernook sëriñ ma Madina ñu bokk ñëw toog màggalal ko ci yéen màggaluk borom xaas goo xam ni ku ca ñëw yàlla def ci yow xaas kuy murit na nga waajal ceen jolof njaay màggaluk ca yéen ku ca dem yàlla jënd sam njaay sëriñ bi yéen waajal màggalu ca yéen Euh, mën dellu si lan moo war a màggal boobu ak tàmbalee di célébrer. xanaa di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad di wax jërëjëf Serigne Touba euh, sant yàlla gi nag mooy dafa am bis bu mag boo xam ne dañ koy waajal muy bisub Ceyeen Jolof Ceyeen Jolof nag ci histoire ngir nga xam ko mooy dëkk bi nga xam ne bi Serigne tubaa jógee ci géej gi. ñu yóbbu ko gànnaar bi mu fa jógee ñu indi ko Sénégal ceen jolof googu lañ ko yóbbu woon exilé ko fa mu ñëw fa 1907 ba 1912 mu nekk nag histoire bu am solo ndax dafa am soxna suñ fa denc ku ñuy wax maam Faati Isa Diop maam Faati Isa jóob moomu nag mooy juru maam nu Birahim Ndaamal Daaru Muxti maam Faati Isa jóob moomu nag mooy ki njëkk a jébbalu ci Serigne Touba. ndax bo xolé ci maglu poroxaan gi serigne Basiiru mom serigne Abdul Khadir mi ngi netali di wax ne soxna fatih Isa mo ñëk a ci serigne Touba ndax dafa ando ak soxna Jaara Buso mi wayjuru serigne Touba ñu dem ci teen ba nekkon ci poroxaan di fa root bi ñuy root nag ba li ñuy roote ci biir teen bi té mënuñu koo génné serigne Touba wax soxna ci ne ndey bu ngeen mëne dañ secret dina leen dimbulé mu ne ñu ne ko waaw mu wàcc ci gannaaw euh, ci gannaaw soxna si génne leen baag bi nga xam ne moom lañ doon duye bi ñoppee soxna Faat Isa wax soxna jaar ne ko ci yaa man a denc secret man de xaw ma woon ne sa doom ji nii la mel waaye nag li ma lay ñaan bala maa jóge fii damaa bëgg nga may ma ma jox ko sama bopp àddina ak àllaaxira ginnaaw boobu it soxna Faat Isa ak soxna jaara dañoo bokk wenn way juru jigéen dellu bokk sëñ Moor Anta Sali kii di waajuru sëriñ Touba kii di waajuru maam Thierno Birahim soxna Faati Isa moom it mooy jigéen ji nga xam ne moom rek la sëriñ tubaa dugal ci biir bàmmeel sëriñ tubaa musul dugal kenn ci bàmmeel ku soxna soosu te loolu yonante bi sallallahu alayhi la ko niru ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla euh, waajuru rek la musa dugal ci biir bàmmeel te Serigne dafa wax ne lépp loo xam ne yonant bi am na ko niru niru naa ko kon nag dafa bokk ci li nga xam ne niru na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxna Faati Isa moomu nag euh, ñu ngi ko ñu ngi ko yóbbu ci yéen bi fa Serigne Touba nekkee ndax dafa am bis mu toggal sëriñ bi xéewal jox ko ko bi Serigne bi xéewaloo ba noppi daal ne ko loo gën a ragal loo gën gën a bëgg ma defal la ko ci àddina mu ne ko man de damaa ragal damaa ragal bàmmeel Serigne Touba nekko ndax su ma la dugalee ci bàmmeel sa xel dana dal mu ne ko waaw Mbàkke loolu rek laa bëgg ndax xam naa ne boo mu dugalee ci bàmmeel rek du ma fa wéet. Serigne Touba wax ko ne ko maalay dugal ci biir bàmmeel moo tax bi sëriñ tubaa demee ci géej gi te tubaab bi bind lettre wax ne sëriñ tubaa génn na àddina bi ñëwee wax ko maam Thierno ba maam Thierno Birahim tàng lool mbokk yëpp mel ne lu jaaxle dafa gis maam Thierno mu soppeeku mu ne ko Thierno lu xew mu ne ko de nasaraan bi wax na ne Serigne Touba génn na àddina mu ne ko ah demal ci sa liggéey ba ndax xam naa ne day Serigne Touba waxam ak alxuraanayam te moom waxoon ne moom may dugal ci biir bàmmeel moo tax keroog bi Serigne Touba ñëwee ci yéen Jolof ba woolu ko bi muy dem daa fay ay borom joxe bagaasam xam ne bu demee foofa du dellusi Serigne Touba nag ba mu ko fa dencee ca 1908 euh, euh, la ko fa denc euh, bi mu ko fa dencee 1908 1912 la fa jóge ñëw njaareem Serigne Touba nag juróomi at yi mu def ci yéen lu nekk xew na fa ci ay baax li nga xam ne moom lañ ci gën a ràññee rek bis ba mu fay gonte woon a magi taalibe yépp laaj leen ne leen ndax yéen ñaa xam ngeen ñaata kaamil alxuraan ngeen fi jàng mag ñi ne ko waaw ñun de daanañ def saa yu xëyee ci juróomi at yi suba gis danañ jàngub kaamil bëccëg gi ñu jàng ngoon gi ñu jàngub kaamil bis bu ne danañ ko def ci juróomi at yooyu sëriñ bi ah, yéen de jàmbaar ngeen waaye man de fii de jàng naa fi junniy kaamil te ci yéen jolof googu nag munoo faa dox benn mètre boo xam ne nii du sëriñ Touba jaaroon la ndax dafaa def dafaa dem sañ ci benn dëkk bu ñuy wax euh, Daaru Rahman bu fa soxna su ñëwee ba mu denc ko ci dafa tuxoo sanc si fu ñuy wax daaru xuddoos daaru xuddoos googu nag boo fa demee tey fa la waa kër sëñ Mbàkke Madina nekk te sëriñ Cheikh Bambaali tabax fa jumaa ju mag a mag a mag mooy fi sëriñ Tubaa daan jullee foofu it rek ngay dem fekk fuur bi nga xam ne ci lañ daan lakkale sëriñ Tubaa mburu muy dox ba léegi foofu rek it ngay dem gis fi sëriñ Tubaa daan tool di jàpp ñu ne la fii la sëriñ Tubaa daan jàppe foofu rek it ngay dem teen bi sëriñ daan naane ndox teen ba nekk fa ba léegi ci yéen Jolof googu nag moom la ñuy waajal màggal gi waaye nag ñun li nga xam ne nag moo moo moo tax ñu koy waajal soxna Faati Isa moom mooy waajuru maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim Serigne Mouhamadou Awa Balla mooy taawam Serigne Mouhamadou Awa Balla moomu nag mooy waajuru Serigne Fallou Assa Dieye Serigne Fallou Assa Dieye moo ñu moom mooy suñu waajur. Serigne Fallou Assa Dieye moomu nag bi fa Serigne Touba jógee 1912 ba 1966 kenn demul ci barab bi waaye am na benn pël bu fa nekkoon boo xam ne moom la Serigne Serigne tubaat dénkoon barab ba ba mu fay jógee. nga xam ne maam Thierno danaan def at mu nekk mu yónnee ko ab dundam ngir mu koy wattuwaaleel barab ba bi mu demee ba nga xam ne màggat na lañu woo doomam dénk ko barab ba nga xam ne bi fa Serigne Fallou di dem 1966 bi mu jógee Daarul Muxti di dem dañuy dawal oto bi ba yàgg dañuy taxaw di gor garab ngir am yoon woo xam ne fa ñuy jaar euh, bi nga xamee ne yàlla dem nañ ba àgg foofu ba gis pël ba mu wan leen euh, barab ba barab boobee nag ba mu fay dem mi ngi ànd ak ñu wax Serigne Cheikh si la diiwaan ak sëñ Mbàkke jam biñ demee ba fu ñuy wax muxu muxu ci lañ fa àndeek bàyyi sëriñ Saar bañ àggee ca barab ba ba ñëwee ba pël bi wan leen ko bañ gisee bañ ba mu leen wanee fi ñu war a gas bañ ko gasee lañ gis xeer wa nga xam ne fa lañ bind soxna Faati sa Jóob te sëriñ Tuubaa bindoon ko ca loxoom bu sell ba sama waajur wax ne ñëwaat daaru muuti ci sëñ mu daaw bala ne ko maa ngi delluwaat ci yéen waaye bu ma delluwaatee de eh, eh, fës yéene naa ak daay dootul lakkati barabu soxna la fas yéene fas yéene naa itam wut lu ko tiim ba naaj wi dootu dootu lakk barab ba bi mu ñëwee këram benn baraabu seng laa woon ci biir kër ga moom la teggi wut ab camion teg ko ci dem tiimale ko barab boobee. loolee nag mooy sancub Ceyeen ba tey jii boo fa demee ab dëkk bu mag a mag la te xam nga loolu moom ndam la ndax soxna su mel noonu soxna su selle noonu ku gëme Serigne Touba noonu ku njëkk gëm sëriñ Touba ci kaw suuf ñu denc ko foofa nga am yàlla baaxe sa wayjur mu dem fa. ba gis barab ba defar ko ba tey boo fa demee moog dëkk yëpp a yem ndax dëkk boo xam ne bu fa taalibe yi daan dem di siyaari Serigne Touba da dangay fay lempo ba noppi boo fayee lempo tamit ñaan la ñetti kilo dugub rek nga yóbbaale ngir li dunde dundee tey jii bu la neexee mën ngaa xëyee ndakaaru dugg ci sa oto taal sa climatiseur dem màggal ci yéen siyaar barab ya wàññeeku fanaan si waa ndakaaru te loolu ki nga xam ne nii maanaam moo ko def mooy suñu waajur bu baax woowee di Serigne Fallou Asta Dieye yàlla def tamit moom mu génn àdduna ñuy boole màggal googu nga xam ne mooy màggalu soxna Faati Isa ak ñaan gi ñu koy ñaanal ren jiinag nag mu am lu exceptionnel lu ñu ci boole muy Serigne Cheikh Khady bi nga xam ne moo nekkoon xalifa borom Daarul Muxti te jóge fu bu yàggul te dëkkoon ci néegu ñax yooye te jël ay milliards defarale ko defarale ko jumaay daaru mujj ku ne daarul muxti ji te ku ne gis la nga xam ne liggéey na ko fa ren jii nag mu tombeek màggal gi nga xam ne nii mooy njëkk ci nekku ci mu génn àddina ñu ñu fas yéene ko boole ci ñaanal ko ci liggéey bi nga xam ne doon na ko liggéeyal waajuram ba borom daaru suñu borom fay ko ko moo tax nag ren màggal gi am solo lool ci noonu ñu ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo ci bis boobu ndax day xam naa ne foofee de ko fa dem am na jigéen ñoo xam ne dañ daan toog lu yàgg munuñoo am doom waaye dañ fay àgg ñaan suñu borom suñu borom may leen may leen doom da nga koo xam ne day tawat tawat ju metti ba ba ñàkk ci moom yaa boppam yaakaar dem ba ca barab ba ñaan fa suñ borom sotal ko ñaan goge mu dem manam wéralal ko ba taxna kep ko xamni ni am nga soxla wala nga am yitte jo xamni ni teuna la na nga dem fofé ñun nak liñ def ni moy dañuy roy ndax Serigne Touba yonent bi rek la daan roy suñu mam ju baax ji maam Thierno Serigne Touba rek la daan roy te gis nañ Cheikh Mamadou Bassirou mom Serigne Touba ni def barab poroxaan ba ak ak domam ju baax ji Serigne moussa Bassirou ñun nak ci lolé tank yoy lañ fassiyene jaar ba barab bobé ñu roy Serigne Bassirou ci jaf googee mu defoon foofee ak doomam ju baax ji sëriñ Basiiru ba poroxaan mel nii mu mel ñu roy ko ci ba jël ci yéen Jolof tamit def ko noonee te ci yéen exception bi mu am mooy fudul njaareem rek la fa sëriñ Tuubaa def defu ko fenn juróomi at ci yéen dong la ko def ci gannaaw bi mu jógee ci géej gi nga xam ne booba daa fees dell di yàllay neen ba tax na képp koo xam ne am nga soxla wala nga am yitte te bëgg yitte jooju suñu boroom saafara ko na ñëw ci bisu màggal googu ñoo ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn képp ku dégg woote bi rek xamal ne mooy saaw carte ñoo ngi ñoo ngi ciy woo suñu mbokk tijaan yi xaadir yi ak laayeen yi ak ñëpp rawatina nag murid yi nga xam ne ñoom ay taalibe sëriñ Touba lañ rawatina ñi nga xam ne ni ñooy waa kër borom daaru ndax ci yéen euh, barab ba dafa mel ne Serigne Fallou mi ko mi ko gis rek euh, lañ koy lañ koy moomale waaye déedéet képp koo xam ne ci njabootu borom daaru muxti nga bokk rek xamal ne barab ba sa barab la euh, rawatina waa kër sëñ moom moo daw balla ñoo ngi ciy woo ñëpp. bàyyiwuñu kenn képp ku dégg woote bi daal na nga xam ne bis bii moom sa bis la. di ci woo ki nga xam ne nii mooy njiitu réew mi di président Macky Sall di ci woo it ki nga xam ne nii maanaam mooy euh, premier ministre am ak gouvernement di ci woo ki nga xam ne nii mooy président conseil économique et social environnemental euh, Soxna Aminata Tall di ci woo président assemblée national ñoo ngi ci woo daal képp koo xam ne diine ñor na la na fa ñëw ndax yëf fi diine rek a fa nekk te soxla wuñ fa leneen tamit lu dul diine ñoo ngi woo ñëpp. ñi nga xamne ñu war nañ fa ñew tew ci euh, serigne euh gannaaw dajal bo boo xam day dajal ay doom aadama yu jige fu nek yeen matu kay lañ jëlagum ci walu karange gi ak ci walu santé bi ak yeen environnement nga xam nañ ci am ay ci leral wax nga magal gi mom bu déssé wér rek dañuy dem def CDD fa ñu fa Linguère parce que ci département Linguère la bok waye tamit magal gi saa yi na ñëw wax deug Yalla da nañ ci jël matu matuwaay yépp da nañ fexé ba ndox mi doy sécurité bi tamit dina fa bari lool waa ministère de la sant itam dañ fa yëbal ay ay ay agents yu doy yoo xam ne nii maanaam seen liggéey mooy toppatoo wiru yaramu doomu aadama yi ndax foo xam ne ay junni nit ñoo fay daje lu mel noonu mënu faa ñàkk waaye nag yàlla mi ngi ci suturaal ba bañ ko tàmbalee 1984 la ko suñu waajur tàmbale woon ba léegi kenn mus faa dem ba bañ na la lii am na fa ci tawat wala jàngoro joo xam ne nii maanaam day day wàllaate loolu nag sant yàlla lañ ciy def waaye defe naa ne tamit liggéeyu Serigne Touba ba mu fa liggéey ak mbaaxu soxna si moo waral loolu ci teunk rek bo beugé am lo ci yok wala nga tej wa xana rek di di di di delu di santat yalla rek di santat yalla bu baax ci eh, katan gi nga xamni ni may nañu ko bañ mëna def li ñu bëgg def def eh, may ñu tamit ñu fekkewaat ko bakoy wajalat ni diko di ko ñaanit may ñu ñu fekkewaat ko ay at yu bare bare bare wàññee ko di sant nak sama xarit bu baax eh, Youssou Ndour nga xam ne ba ma koy xab ak léegi manam tollu na ci ñaar fukkat ak juroom xamna bu baax limu koy wax di sante yi tamit bu baax Mamadou ak Mamadou Ibra ak biran ak ñi nga xamne ñu ngi fay liggéey yépp kilifa yi fa nekk yépp muy Boubacar muy Alassane Samb muy njaga muy Arona ñom ñëpp nga xamne yalla def nañ moy samay xarit lañ ma ngi leen di sante bu baax di sante bu baax tam Sarlu Fay tamit ak sama xarit yi fa nekk mo doon lim ñima fa am ñëpp dama yaakaar na ne kon moy moy doon waxtaan wi ndax yàlla moo ma boole ak ak ñoom ci ci ci fànn yu baree baree bari maa ngi leen di sant tey ñaan nag seen uh, ICFM moom yàlla def mu sut ci internet yëpp uh, ndax moom lu am solo la uh, actualité rek soo ko bëggee gis da ngay ñëw ci ICFM ndax waxtu wu ne rek saa yoo fa demee rek li nga soxlaa xam da nga ko liggéey boobu nag nga xam ne yéen a ngi koy def mu rafet ñoo leen ciy sant te di ñaanal yàlla suñu borom. Euh, mu mu mu mu yokk leen euh, njool mii xam na li may wax ak Arouna dañuy ñëw màggal Touba te màggal Touba yàlla def na Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo jiite communication bi te lépp lu jëm ci wàllu presse man la ko dénk suñ ñëwee man ak ñoom ñooy liggéey te gis naa liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi ko fay liggéey ci ci ci waxtu wu nekk ñëw ñu leen ciy sant di leen ci gërëm di woon ak kenn ci ñun ki nga xam ne mooy euh, sëñ Bassirou Abdoul Khadr mi nga xam ne mooy porte parole bi. Euh, ak Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma di woo tamit ñëpp ñi nga xam ne daal ay ay ay taalibe yu murid lañ li nga xam ne nag moom laay ñaan mooy sëñ Seex sëñ Seex Sidil Maxtaar yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu naal ci euh, ndakaaru muy jumaam ji ak sooroor yee muy defar ca ca Touba ak université bi nga xam ne mu ngi koy tàmbali suñu borom may ko kattan ak wéru àggale ko di ñaanal tamit Serigne Abbas moom Serigne borom daaru li fi Serigne Cheikh di liggéeyoon ba ñëpp teg ci bët suñu borom may ko kàttan ak wér moom tamit ba nga xam ne lim ci bëgg a def dina ko ci def. di ñaanal sëñ ab sa yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal tam sama xalifa bopp bi nga xam ne nii nag ci ci kàddoom laay waxee jamono ju ne muy Serigne Bassirou mi nga xam ne moom mag ci sama kër jur euh, yor liggéey bi dénk ma ko moom it yàlla may ko kàttan may ko wér may ko gudd fan. di soññi bu baax ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi ku ci mel ne Serigne Mafal Fall Serigne Bassirou Sall Serigne Bayka. ku mel ni Ibrahima Thiam Murit ca Italie ak ñi nga xam ne ñii ñaar ñoo ñoo mooy Baye Cheikh Diagne ci yor daayira yëpp ndax daayira yi moom léegi àgg nañ ci téeméeri daayira ak ñeen fukk téeméeri daayira ak fukk nag dëkk bu ñuy dajee mbooloo mu dul jeex la ndax soxna see toll noonu daayira yooyu yëpp nag ñoo ngi leen di soññiwaat di leen ci woowaat eh, di ci soññ it sama nijaayu bopp sama xarit eh, maître mu Touré nga xam ne way juramu jigéen ak eh, ak sama maam ñoo ñoo bokk wenn way jur Euh, maa ngi koy yëgal bis bi di ko ci soññi di ko yëgal it maam Cheikh mbay bu alaaji jiri nga xam ne sama sama sama xarit la ñu yàgg lool di ko yëgal maam noo Mbacke moom Serigne Ousmane nga xam ne at mu nekk moo fay jiitu te bu ñëwee it dana de dana fa wane loo xam ne nii day wane ne soxna si moom léppam la euh, ñoo ngi woo ñëpp lim nag boo koy def mën naa am nga juum fàtte waaye képp ku ñu fàttee na nga xam ne suñu xel moo fàttu rek waaye ñëpp lañu bëggoon a tudd ñoo ngi woo ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp ñëw fa ci jàmm delluwaat ci jàmm jël fa ay xéewal yi ñu fa bëgg a jël ci barke Cheikhul Khadim di di sant nag ab waa Sénélec ndax at mu nekk danañ ñu indil ñaari groupe yoo xam ne nii màggal gépp ñoo koy couvrir jaarale ko ci Serigne Abdoulaye Diagne. Euh, ku nekk tamit gis na taxawaay bu rafet bi nga xam ne Serigne Bassirou moom Serigne Abdou Khoudous mi nga xam ne moo yor kaddu Daaru Musti taxaw na ko ci xaritoo goo xam ne amoon na ko Serigne Fallou ci waxtu wu nekk euh, nga xam ne. fu fu mu toll rek mu ngi taxaw njabootu sëñ fàll gi di sant bu baax ak woo ñi nga xam ne ñoo bokk bis bi muy eh, waa kër alaaji sëriñ sàll eh, di Cheikh Amadou Bamba sàll ak Ibrahima ak seeni rak ñu ñoo ngi leen ci woo xam ne bis bi maa ñun ak ñoo ko bokk eh, di leen wax ne daal bis bi seen bisa képp koo xam ne ni tamit tudd ñu la daal nga xam ne rek xel moo faay waaye fàttewuñ kenn سمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبل بفيدان سمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيدان radatali fi lazi ababta li wajali balasa sababta ajabtani jawabamantala man tala an sinatin wa qutalin fi ala ñi sant ñep di gërëm Thank you.